Ah, Ronaldinho waaw waaw waaw Clément Mansour moo ñëwoon ginnaaw songoon nañu Ronaldinho jël na ko Ronaldinho songaan ngay Clément Mansour Grand Médine Ronaldinho Ronaldinho eh Clément Mansour ba duñ la daan laa ilaaha illallaah jógaan na dañ lay mboot eh eh Ronaldinho mi da ngay waar wa Ronaldinho mi eh Clément Mansour daanu na daf ko gën a bëgg combat bi daan na ko may ko dara daan na ko daan na ko daan na ko la Mansour la ilaha illallah ko may Mansour kele Mansour xale yaa ngi na ko daan na ko